alhamdulilah alkarim silmil nan alastifaadi bi furudin wa sunnan sakartuhu lianu xat saxani liwatani bi nafa ma fani bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi zawi ridwaani wa tamkiin ala xayri xadimihi zil xablil matin ala man bi hadiyihim ila yawmi min al insi washkur xilaami waxmat kalaami bila malaami walam tiraayi lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraayi rabbi aanil abda li yutimmal qasda assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki silatu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaan sunu kàddu yal na leen fekk ci jàmm di nuyu mboolem kilifa yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi moo xam ñi koy topp ci whatsapp bi ñi nga xam ne ñu ngi koy topp ci e, mbaali jokkoo yi lu ci mel ni YouTube mu mel ni it di ngeen ko mën a am ci compte YouTube Silatu Rahim waaye it di koy am ci compte YouTube Saxum Touba. incha allah kon ñu dikkaat ak yéen rek ci seen wëpp wi di pencum lislaam ngeen ci ànd ak seen mbokk soxna bu jaxate wala abul fadil ñi ngi nekkoon nag ci doon waxtaan ci ponk bu am solo tolloon ci tasawuf waaye nag doon leeral ponk yi ñeent ponkam yooyu ponk bu nekk ab taxawaayam ba leeral ci ñetti ponk tey nag ñi nga ci ponkub ñeenteel bi te mooy uzla muy ak beru ci jaamu yàlla kon tey ji incha allah loolu lañ fas yéene waxtaane di dogal ngant mboolem borom xam-xam yi ak mboolem rek ñi nga xam ne buñ déggee wax xam waxin wa di leen dogal ngant ci lépp loo xam ne njuumte la ci rek ñu koy jéggul bu baax a baax di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq fi ñu ko sumbe nu man koo eggalee noonu te leerale ko noonu ñu ko bëgg a leerale ba mu leer nañ ci xel yi te ku ko dégg suñu borom defal la tawféexi nga mën koo jariñoo kon bu ñu ne xosla xëy na duñu guddal ci taarif bi waaye rek ñu xam ne mooy ak beru beru nag gi nga xam ne moom lañ jubloo wax ci diine wala buñ ko dee wax ci tasawuf mooy niiw ab jaxasoo di wéet ci barab boo xam ne danga nga nekk difa fa jaamu sun boroom léeg-léeg nga di ko def loolu rek la mooy mooy mooy solo si waaye mu mel ni nag euh, beru googu nga xam ne moom la ñuy wax du rek nag loo xam ne nit day toog bam neex ko rek mu jékki-jékki daal ne damay beru wala nga koy dégg ni nga koy dégg rek ñu ne ci ci ponki tasawuf la bokk nga di ko def wala ni nga koy waxee dugg xalwatu nga dem wéet fenn yooyu ñu seetloo danañu xam ne bari na ay conséquences yu mu jur ci ñu baree bari rawatina ci ndaw ñi kon dana aajowoo yooyu yëpp di ko génne di ko waxtaane ngir ñu di ko xam moo tax kenn ci taabi'oona yi taabi'oona yi di Ibrahim ibnu Yazid an-Naxa'i rahimahullah ak sax ñeneen ci ñoom dañuy wax ni euh, onze la moom muy beru googu bala am fokk nit ki day dégg diine maanaam day xam euh, day jàng fiq xam ko bu wér xam atte yi xam li yàlla waral ci moom lu mu doon mu xam li mu war a def lan la xam li mu wër te def xam liñ sopp mu def ko ak liñ sip mu def ko ak la ca dagan ba lépp mat su ko defee nag bu beroo mën a xam la def lu doon waaye bu loolu amul rek warul ci nit ki muy beru waaye boo maytu sax mën naa xaraam ndax bari na ci lum ko mën a dugal moo tax day waxoon da daan wax moom naan faq summa tazil na nga dégg fiq ba noppi dooga beru ngir jaamu ji yàlla ma nga ca itixaafu saadatil muntaqin bi sarxi ixya ulumi diin kon ñu xamee ci ne kon nit ki boo xamee ne nam ko nam ko leerale rek ni famani atazala waxtala qabla taallumi fa huwa fi l akthari mudayyihu awqaatihi bi nawmin aw tafakkurin fi hoosin wa awhaamin wa gaayatuhu an yastaxir an yastaxriqal awqaat bi awraadin yastawcibuha wala yanfakku fi acmaalihi bilbadan wal xalbi an anwaain min al xurur yaxibu saxyuhu wa yabtulu amaluhu bi xaysu laa yadri wala yanfakku intiqaaduhu fillahi wa sifaatihi han aw haamin yatawahamuha wa yuannasu biha wa han xawaatirin faasida taxtarihi fiha fa yakunu fi aksari axwaalihi daxkatu li shaytaan wa huwa yara nafsahu min al aabidin daa wax ne nit ki boo fekkente ni limu mu war a xam-xamu ko mu daal di dem rek daal ne day beru ji di jaamu yàlla te jàngul xamul lu mu war a def li ci ëpp rek day sànq tempsam ci ay nelaw ak ay daanaka xalaati dofak ay foog maanaam def lew di jàpp ni nii la demee te demewut noonu te boo ne day yaakaar ne sax li muy def nii baax na maanaam jàpp na ni mi ngi ci lu wér moo gën a mat nit ñi xëy na la muy gis ak yu baree bari daal te fekk ne rek ndeysaanam naam xamut euh, su ko defee yi nga xam ne mooy yi ñu farataal ci moom bu egsee mu war koo def daanaka sax léeg du ko def ndax day yitte woo rek lami muy moo xam wér du muy def la wala dara ba sax yi mu war a def dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne sunu boom da ko farataal ci moom sax léeg-léeg mën na ko sàggane jàpp ne lële moo gën a war taf bu boobaa day di dugg nag ci ak woro di sooyal ay jëfam di def ta du baax te sax du ko xam xalaat yemee xalaatit xalaat yu yàqu lay doon su ko defee nag saytaane jekk ko di ko reetaan moom mu jàpp ni ab jaamukatu yàlla bu mag a mag la moo tax Sëriñ Tuba radiyallahu taala anhu xaadalaahu laahu maxtaara la daan wax naan fa kullu man xabla wusulihi intazal walam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaxuudu fi baxri rada wala yajiu minhu cheyan abada li annahu yaxuuduhu cheytaanu wan nafsu wal hawa kama abano day wax ne képp koo xam ne laataa moo àgg ca yàlla sun boroom beru na day jaamu yàlla te wutul kilifa seexul murabbi kilifa gu mën a yare mu tarbiye ko teg ko ci yoon naan ko lii nga war a def lii waroo ko def moytu lii bul def lii defal nag di ko orienté nee na xanaa mu nekk ca boppam rek a ah, na xam ne de xuus na ci géejug alkande te moom amul fenn fu mën a jaar ngir génn lu ko waral mooy saytaane ak bànnee xam ñoo koy wàmmat di ko won ay mbir ay rawaxaan xëy na di ko dikkale yu demee noonu mu jàpp ne min ci dara te fekk ne nekkul ci dara mooy yi ngay gis nii nit ñi bari lekk yéeg léeg leen di dof ak yu bare bare bare bari ñu koy def fekk na ay talaasim rek la ñuy fekk di ko jël duñ xam lu mu doon ñu nekk ci yaakaar ne lii mooy maye yàlla te fekk ne loolu sax bokkut ak mbir mi aw yoon dëgg dëgg dëgg dëgg ko defee kon lu mooy solos xaw nag waxtaane dëgg-dëgg lan mooy onze la kon ñu xam ne kon sayt mm, xam-xam mënu cee ñàkk mooy cosaanu diine te jëf ju mu mën a doon te àndut ak xam rek ak sànq lay doon ak sànku eh, ni ko bi waxee ci mbindam yu bare bare bare bare waaw mm, eh, noonu képp koo xam ne yaa ngi jëf te xamoo sa jëf joojee pënd rek la bu xam ne dañ ko wisaare kon nit ki fokk mu am ko ko ci mbir ba noppi mu doog a jàll ndax dañuy wax ni eh, murit bi nga xam ne mooy wut yàlla dafa mel ni ku feebar aajowoo ab fet fajkat bu ko faj di ko ñeewante di ko bindal ordinance ordonnance muy dem di jëndi garab yi di ko naan ko naanel nii naanel nii naanel nii donte ni dafa jàng médecine sax ba xam ko day aajowoo ku ko faj rawatina nag ki ko jàngut xamu ko léegi nag moom bu jógee daal tawat demul ca médecin ya xanaa mu ne moom mooy faj boppam te fekk na sax xamul dara ci médecine mënta ñàkk muy jëfandikoo loo xam ne dana ko gën a lor te bu boobaa loolu doonutoon la amoon njariñ kon loolu it lu mat a bàyyi xel la fi xamee ni nit ki moom ak lu mën a xew daa war a xam ba noppi daa war a xam ba noppi lu muy def mu doog koo def noonu rek la mbir yi demee su ko defee nag moom beru dafa am maanaam fuñ koy defee wala nuñ koy defee xëy na loolu it euh, mi ngi ñëw ci biir waxtaan wi fañ koy defee mënta ñàkk mu am barab ndax daga nga ni beru kon fokk nga nekk ci ruq lu mel ni néeg wala saal wala jàkka wala xeet yu mel noonu ba sori lépp loo xamante ni luy jax jiixi jaax sam xel la noonu la ko Muhiddin Ibnu Arabi rahimahullah leerale di wax ni sama sëriñ ba de waxoon na ma ni ma tëjal bunt ba te ndog sabab yi jàkkarloog aji maye ji suddal baab waqtaxil asbaab wa jaalisil waxaat kon fokk du mën a ñàkk nga wut lu mel nim néeg am day amu buntu nga di ko tëj nga xamante ni lenn luy dog luy dox sa diggante def li nga war a def xëy na doo ko gis ci waxtu woowa ba nga mën a teewlu li ngay teewlu ngir mën a jàkkaarloog sa borom nag li ko di def da ngay def moo xam loo ko da koy ñaan moo xam da da nga da nga nga koy tudd di di di di zikkar turu bi wala da xalaat ci moom wala ay naafila la yooyu def wala daal xeeti jàmm yàlla ya nga xam ne moo ca aju ci biir su ko defee kon dafa mel ni boo ko xoolee aw xeet la rek eh, ci i'tikaaf li ko wuutaleeg i'tikaaf nag mooy i'tikaaf moom ci jàkka lees koy defee bu dee beru gii nag mën nañ ko defee feneen fudul jàkk niñ ko leeralee noonu koy loolu ko Ibnu Arabi rahimahullah waxe mën nga am sab néeg di ko fa def de nit ñu baax ñi moom dañ daan wut benn barab buñ koy defee ngir foofaay gën a sell xëy na lu bari du fa dugg daal loo xamante ni mën naa jeexi jaaxa seen xel loo xamante ni moom bu fa nekk lenn lu lu lay lu lay lay luy kii sam xel rek du fa ne ca loola la mën a nekk ba mën a teewlu lañ war a teewlu dëgg dëgg dëgg kon loolu rek moo li ko wutale ak intikaaf su ko defee nag ndax am na diir diiran bu muy diire wala amu ko waa bu dee ci mm, waa tasawuf moom wutal luñ ko waxtu daal ne diggante nangam ba nangam lay doon dina ko ëpp wala du ko ëpp wala du ko yées déedéet amul amul loolu ñoom dañ daan defee rek nuñ ko yëgee ñii dinañ ko def ay nangami fan ñii di ko def weer wala lu ko ëpp sax yooyu yëpp euh, dañ ko daan def ça dépend ci yéeg-yéeg bañ cee amee ak yu demee noonu kon tënkuñu ko comme neex nag man ngay dàkk lu mel ni lu mel ni fukki fan yi tabaski gi xam nga yooyu juróom-ñeenti fan yooyu moo wala fukki fan yooyu moo gën ci at mi luñ ci mën a def rek moo ci gën wala lu mel ni fukki fan yi mujj ci weeru kor wala xeeti weer yu mel noonu comme neexit nga jël lu mat ñeen fukki fan niki Euh, digg ya nga xam ne moom la suñu borom joxante woon ak Moussa ni mu ñëwee ci alquranul karim wa iz waahadna Moussa arbaina layla summa taxastumul hajla min ba'dihi wa antum zalimun borom di wax dañoo déelante dañoo digal déelante woon ak ñeen fukki guddi euh, bam ca demee te ginnaaw ba ñu Moussa Samiri indi yëkk woowee ñu di ko jaamu ñeen fukki fan la fa def kon mel na ni ñeen fukki fan yooyu it mënees na koo def a na ci surtu Araf muy wax naan wa waahadna Musa salaasiina layla ay nag wa atmamnaaha bi asrin fa tamma miqaatu rabbihi arbaina layla kon ñeen ñaar fanweeri fan la ko sun borom defoon ay ginnaaw bi mu ne ko dañ koy mottali ba mu mat wala boog mu mottali ko ba mu mat mu dolli ci yeneen fukki fan ñen ñeen fukki fan kon ñeen fukki fan yooyu lu dëgër la loo xamante ni manees na ko ñoom dañ ko daan def ci ñeent fukk yooyu wala nga def ko weer rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne xadis bu wér la euh, jaabir ibn abdullahi al ansaari rahimahullah moo ko wala radiallahu anhu moo ko solo euh, ñëw na ci saxu muslim ak buxaari yi euh, wax ne yonente bi sallallahu dani weer la ko def moom moom jaabir ba muy nettali ba agsi da wax ni uxaddithukum ma xaddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal jaawartu bi xiraayin shahran falamma qadaytu jiwaari nazaltu fastabtantu batnal waadi fa nuudiitu fa nadartu amaami wa xalfi wa an yamini wa an shimaali falam ara axadan summa nuudiitu fa nadartu falam ara axadan summa nuuditu fa rafa'tu ra'si fa iza huwa ala al-'arsh fi al-hawaa'i ya'ni jibril alayhi salaam fa axadatni rajifatun shadida fa ataytu xadija radiyallahu anha fa qultu dathuruni dathuruni fa dathuruni fa sabbu alayya ma'an fa anzala allahu azza wa jalla ya ayyuha almudaththir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa si'abaka fa tahhir dafa wax ni am na benn bés yonent bi salaam daal di ñuy wax ni man de wéetal naa sama boroom wala dëkkaale naa ak sama borom ca xiraa ca aarul xiraa weeru mat sëkk ba ma ko defee ba mu napp nag ma génne am lu ma woo am bi ma woowee ma xool sama wetu ginnaaw sama kanam sama ndeyjoor sama càmmoñ gisuma dara ma xoolaat gisuma dara ginnaaw bi mu woowaat ma bi ma xoolee gis mel ni ab siis bu nekk ci asamaan si ma gis ca malaayka te moom jibril la ma tiit nag tàmbali di lox ci la ñëw ca xadija naan ko nag sàng ma sàng ma ñu sàng ko ci la suñu borom wàcce aaya boobu daal ni ko nag yow mi aji sàngu jugal da ngay màggal sa borom laabal say yére ak yooyu noonu ba bay mat kon day mel ni weer wu mat sëkk la wax saxran kon mu mel ne weer it ku ko def mu baax kon ginnaaw loolu solo yi nga xam ne moom am na ko moom mom moom ba wéet bokk na ci yooyu mooy day tax am xikma ni mu ñëwee ci xadis fu boo xam ne anas moo ko solo ahmad moo ko nettali muy wax ne man axlasa lillahi arbaina yawman tafajjarat yanaabiul xikmati min xalbihi ala lisaani képp koo xam ne sellal na yàlla sun boroom ñeen fukki fan weet ko beru ko di ko jaamu sun boroom sun boroom dana génne ay xikma ci xolam muy jaar ci làmmiñam di génn bokk na ci loolu it muy xalaat kon di di di di di fa xalaat wéet ngir xalaat waaye nag xalaat googu dafa am fu mu jëm dinañ ci dinañ ci ñaw ndax ki nga xam ne dafa sóobu jëm ci boroomam euh, ba jeex takk ci bànneexu jaamu yàlla kooku day mel ni weet moo koy gënal jaxasoog nit ñi ñu baree bare wéet wéetaay moo koy gënal ndax mbégte mi muy àndal ci lépp lu mën a def rek yëg-yëg bam cay am day wuute ak bi muy am ci biir nit ñi bu toogee ci biir nit loolu loolu day am ba waxtu wii ci xam sax ay jëmm yoo xam ne xëy na yoon da du def nga di ko tudd waaye dañ la ciy wax yoo xam ne ñii dina bari lu ñuy daw fekk ne yëg-yëg bi ñuy am boo leen fekkee dañuy xaw a dem ba di la mere sax ngir tolluwaay bi nga xamante ni moom la am ci jaamu yàlla rek duñ bëgg ku leen koy dogal loolu nag xalaat ak tudd yàlla moo tax sëriñ bi da koy leeral ci masali ko jinaan naan ku bëgg a wéttalikoo sun boroom del bari looy yàlla waaye ku bëgg xam yàlla ku bëgg xam yàlla del xalaat sun boroom subhaanahu wa taala wax ni wal uns min ba'di dawaami dikri am mattaarufu fa ba'dal fikri wéttalikoo ko sunu borom daal mi ngi am ci saxu tudd yàlla ga boo koy def rek dana dem ba wéttali la ba nga xam ne yow dootoo amati yëg-yëgu am nekk kenn daanaka su ko defee nag ku bëgg a xam yàlla nag bokk taarifuna billahi nag del xalaat moo tax mu daal di cee teg ni wa axbaroo bi fawxi fikri saaxa ibadati sanati laadim taaxa xibaar nañu wax ne toog xalaat benn benn saa benn saa mooy benn minute mën nga ko wax ci sun borom subhanahu wa taala moo gën jaamu yàlla ak at te loolu amu ca jaamu yàlla ak at goo xamante ni euh, teewlu ko kon xalaat lu ama am solo la waaye nag lañu waxoon rek na ko xam di jiitu jamono bu nekk mu teg ca waxlam bi anna al fikra miraatu liman amana bi rahmani jalla xaysu il fikratul fata turihil xasanaat mustabshiran kama turihi sayyaat wa hiya naatu kulli taalibin xola min rabbina arrahmani jalla wa ala samratuha li saahibil irfaani usuluhu li xadrati arrahmani nee na nga xam ni xalaat bi mooy seetu képp ku gëm yàlla suñu boroom ndax boo dee xalaat day mel ne dangaa jël ab seetu daal di koy teg di ci xool sa bopp nim lay wane sa yi rafet ci yow nga di ci bég noonu la lay wane yi bon ci yow nga di ko xam ngir mën ko tuut fi mu ne nii bu nit ki dul xalaat ci mi boppam di xalaat ak doyadeem ak yu baaxam rek day doyar waxta li yonent bi salaatu doon wax naan na ngeen xisaab seen bopp bala ñu leen a xisaab boo xalaatee xam ne lii kat ma def baax na buñ ko bu feeñoon tey duma ci rus di nga xemmeem ci di ko baril nga xalaat ni lii ga def naa ko waaye baaxut te jii bu ma nit gisoon ah dina dina rus lool su ko defee dina la découragé ci loo ci loola ba dootoo ko bëgg a def an moo tax moom xalaat képp koo xam ne da ngay wut yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek mooy mooy saw yoon mooy li lay li lay lay teg ci yoon su ko nag moom xalaat meññet aw li muy meññet meññenteef nga xam ne moom lay jur mooy eggale la ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala nga xam ko xameen wu wér ndax euh, ibnu ataillah al as-sakandiri yi euh, day leeral ni meññenteefum ñi nga xam ne dañuy wéetal yàlla ci seeni wérd la muy def ci seen xol mooy day tarbiya seen xool yar ko tàggat ko ci xalaat te biir tàggat googee mu koy tàggat ci xalaat nag ci la xikma di balle ca seen xool yaa te dégg nga suñu borom li mu wax ko man yuutil xikma rek faqad utiya xayran képp koo xam ne jox nañ la xikma daal na xam ne yiwu bare bare bare jox nañ la ko moo tax day wax ne maa nafaxal qalba shay'un mislu uzlatin yadxulu biha maydaanal fikra aw maydaana fikra fikratin day wax ni amul lenn lu gën a mën a jariñ xolut murit bi ci bero ndax ci bero googu ci lay sóoboo ci lefum xalaat lay bero te bu ca duggee rek xekk ma daal di mën a tàmbalee dugg ca xol ba waaye nag e, imaam Muhammad Sahib Ramadanil Booti yal na ko yàlla e, yërëm day day bi muy bi muy bi muy Euh, sarax loolu daa wax ni yanbaxi an nulaxisa an ibnu ataillah abara bi kalimati xuslatin munakkiratin walam yuabir bi kalimatil xuslati euh, muharrifa daa wax ni war nañoo mën a gendiku nag xool waxam ji mu wax ndax xusla fii dafay jëfandikoo nakira waaye jëfandikoo fi maxarifa maanaam Euh, ràññalewu ko ngir ñu man koo xam muy deful ci alif laam mos la rek la def deful alons la li waral deful loolu nag mooy bu defoon al gi te du loo xalaat taksir day wane ni kon lu bari waaye nag saga mos la rek la wax day wane ni kon muy néew maanaam lim jubloo leeral foofu rek mooy waxuñu la sa àdduna jëpp nga bëg koo beru ba daw nit ñi waaye nag léeg-léeg nga di ko def muy bañ a ëpp bañ a loolu la ca la ca jublu ca wax ja ndax nit ki am na fu muy toll fi ne nii beru day xaraam ci ndax bu dee fii nga nekk yaa fi ne di fa xam-xam nit ñi war a gindikoo ci yow nga beru bañ leen bañ a génn ngir wax ak ñoom rek bu boobaa loola day daal di indi bàkkaar ci yow sañu sañu ko def kon dangay xamee foofu nit digg doomu gi lu ci am solo la waaye soxlawuñu tamit nga ëppal ko ëppal bu fekkente ni nag. nit ki moom loolu lépp mucc na ci am na nit ki jamono bii rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi gindi nit ñi ak yu demee noonu wax dëgg yàlla nga xam ne loru amu ci daal bu boobaa moom boo ko dee def mu gën ndax dina bari lu mën a jur ci ak jege yàlla ak ya ca aju te it nag li ñuy wax rek nit ñi dañ lay doxale sa digganteeg sa borom ba noppi bëgg a dox sa diggante sa borom man la ko kilifa yi daan waxe su ko defee nag fexe ba xam. Eh, maanaam nu muy digg mo ci yow noo xamante ni doo lor nit ñi doo doo loru waaye tamit nit ñi duñ la lor ci dox sa digganteeg sa borom su ko defee nag kon nit kooku de beru nag di xalaat sagam dañoo wax ne tudd yàlla ak xalaat ñaar yooyu bokk na ca la muy def ak ñaan ak ya ca aju léegi xalaat nag ci lan ngay xalaat booy xalaat dañuy wax ne xalaat dangay xalaat ci kéemtaani sunu borom subhanahu wa taala yi nga xam ne def na ko lu mel ni bind gi mu bind àdduna ak bind gi bind mbindee fi loolu fi mu nii lu yéeme la dañ koo meen rek waaye àdduna ni mu mel xool o asamaan si wa sama bina a amut lenn lu ko téye benn poto rafaxa sama bi xayri amadin taraw na amut dara lu ko téye ni mu kéemtaane ngay xalaat ci lu mel noonu loolu dina la tax a gën ragal yàlla dina la tax a gën a dell ci suñu borom xam ne kii kartan gi moom jéggi na dayoo mënal na la te boo maadaama yaa ngi xalaat mi mënal na la lu ne rek di nga ko ragal te boo ko ragalee di nga ko moytandiku ba lim lay tere doo ko def di xalaat yow ci sa jëmmi bopp ni ngay doxe sa tànk yi ak ya ca aju li yi nga xam ne ay réflexe la ci yow dara bu jugoon bëgg laa gaañ ni sa wala nar a dugg ci sa yi ni muy gaawee xefe te yow sax doo ko def ak yu demee noonu ak bu dara wut ñëwoon wuti la ni ngay yëkkatee sa loxo gaaw fekk ko te doo ko yëg wala bu dara ñëwoon nara dal ci sa kaw ni ngay gaawe wadd daw te xamoo lu ko waral yooyu yëpp nga xam ne yàlla da ko def muy yëngatu ci yow te xamoo ko sa bopp bii boo ko xaroon doo fi gis karaw ci biir jigéen ween boo ko daggoon deret nga fay fekk te bu gone nampee xëcc da gis ne soowee génn ak yu mel noonu yooyu yëpp boo boo boo daggoon tey boo boo rayoon am xar fees ko doo gis ci biir yaram wi karaw waaye da ngay gis ni karawan ci kaw xeet yu bare bare yoo mën a xalaat ci mbindeef yi loolu boo ko xalaatee dina am leneen lum la mën a jural ci ak ragal yàlla ak ku gën a gëmaa sun borom di xalaat tamit ci xéewali sun borom subhanahu wa taala loolu it dina tax nga farlu ci jaamu yàlla dina taxit nga farlu ci sant yàlla te loolu ak jaamu yàlla gënu ko kawe di xalaat ci sun borom fay gi mu dig wàllu yi ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanun ak it tatanazzalu googu mu wax alayhim al malaikatu buñ demee ba war a faatu yu demee yooyu yëpp boo ko dee xalaat dina tax nga xemme ma bokk ci ñoom dina tax nga xemme ma bëgg leen te boo ko xemmemee rek di nga jéem a roy seenu yoon di xalaat tamit mbugal bi nga xam ne dig na ko yéefar yi bu loolee dina tax nga ragal mooy yàlla ak ya ci aju di xalaat tamit gàttañlu gi nga xam ne gàttañlu nga ko ci jaamu yàlla te mu wér leen ni la ba noppi suñu borom lim la manal ba noppi muñal la dina taxit képp ku gàttañlu ci seen xaq nga mën ko koo muñal te yàlla tax di xalaat tamit yàlla xam gi mu xam si lépp peeg la foo mën a nekk mi ngi lay gis dina tax boo wéetee ngay bàyyi xel sa borom ba doo tax nga di ko mooy di xalaat àdduna ni muy jeexe ak soxla yu bari ak ni gaaw a soppi ko ak àllaaxira na mu saxe xéewal ya fa nekk ak mbugal ma fa nekk ak faatu ci jëmmi boppam ak siraat ye ca ajo yu yëpp ak riccu ga fay amaat ci ginnaaw bi boo ko dee xalaat dina tax ngay jëfe li nga war a jëf ci àdduna rek li ci des nga di xam nan nga nan nga ci war a taxawee incha allah su ko loolu lenn rek la lay jar jural mooy gàttal ay mébét ak euh, farlu ci jaamu yàlla bu baax fas yéene yokk si yiw yu bare bare bare yooyu la lay jural moo tax sëriñ bi day wax ci masaliku ji daan naan wa fikratu zuhaadi fi fanaa i dunia humo wa xillatul wafaai li taalibiha tuujibu zdiyaada nashaatihim wa zuhdihim rashada ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna xalaat gi xalaat Euh, day ci àdduna ak jeex ki muy jeex euh, man ñàkk gi mu ñàkk mata mën matal kóllëre maanaam ne mën a mun moom àdduna loolu dana tax ñu moytandikoo sàkku àdduna gën a dëddu adduna ñoom gën leen a dolli ak ndax ñi nga xam ne ñooy sako àdduna jamono bu nekk rek da ngay gis ni àdduna da leen di war la Serigne Omar Mbacke Gallo Ngal daan wax naan a doom ku fi sa baay gënut amut te la ñu mën a def rek la ñuy def daale dem ne àdduna mbaxalum xeer la ka njëkk a sóor ak ka mujj a sóor yam kenn du ñor leen su ko defee boo xasee xam loolu rek da ngay daal di moytandiku àdduna di ko daw man ci bi ne bëgg àdduna nag mooy maanaam loo xam nga bëgg àdduna bokkut ak nekk fi di dund bokkut ak nekk fi di di fàggulu lew ak la war a def waaye mooy topp ci li lépp luy bànneexu àdduna rek mu man la koo jaral ba nga xam ne yow mën naa am sax mën na laa yóbbu ci nga nga def lu yàlla suñu borom tere ngir mën a dund waaw fi ne nii bu dee xeetu bëgg àdduna gi gën a suufee ci nun lool la ndax sax bu dee ci gaañu baax yi moom bëg àdduna dañ naan dañ koy généraliser dañ naan li nekk ci diggante asamaan ak suuf sëriñ bi noonu la ko leeralee li nekk ci diggante asamaan ak suuf loo fi bëgg rek te yàlla taxut bëgg nga àdduna loo fi mën a bëgg te yàlla taxut rek bëgg nga noonu la koy généraliser waaye nag ki gën a woyof ci nun mooy bëgg fi mbir ba amoo ci ngor ba man laa jaral lor doomu aadama wala yu demee noonu la lay wax naan xubbu dunia su kulli xati a bëgg àdduna mooy bopp bépp bépp ñaawteef kon loolu lu mat a bàyyi xel la mu ne wa fikratul xubbaadi fii jamili thawaabihi jalla maha tafdili tadidu raxbatan lahum fii maha nashaatihim alayhi ladim waraha ñi nga xam dañuy jaamu yàlla xalaat gi ñuy xalaat ci payug suñu borom gu rafet ga muy fay ëllëg yow ma xi am ak ngëneel ya fa nekk da leen di dolli ñu xemmeem seen jëf ya gën a farlu ci euh, jub ak jaamu yàlla gi nga xam ne ci lañ nekk wa fikratul aarifi fi alaay wa naxamaay fatiri samaay taziduhu mahabatan lil xaqi subhanahu rabban bi kulli xalqi ñi nga xam ne ñooy aarifuuna billahi xalaat gi ñuy xalaat ci xéewali suñ boroom yi nga xam ne moom lay wàcce ak ëllëg yow mal xiyaam na nga xam ne moom noonu lay saxe xéewali ya fa nekk nga xam ne kenn mënu koo takk da leen di doole rek ñuy gën a bëgg seen borom subhaanahu wa taala su ko defee nag nit ki daa war ci moom mu mooy tandiku di xalaat jëmmi yàlla suñ borom ji kon booy xalaat doo xalaat yàlla ndax yàlla boo duggee ci xalaat ko rek musiba daal di dikk ndax dangay xalaat ba sonn te doo xam lu mu doon sëriñ bi day wax ne fa kullu maa yaxtaru bil baali abad fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad mënoo xalaat yàlla xalaat ba xam am ci résultat su ko defee ñàkk googe nga ci ñàkk résultat nag day mujj yóbbu la ci ngay am ay sikk di déng-déng te bu boobaa boo amul ku la orienté gindi la rek mën na laa yóbbu ci kéefar di te loolu dara àddina jëru ko ndax yonente yi alayhi salaam sax dañ daan egg ci xalaat yenn yi ba mujj ñu ne sama borom gindi ma gis nga Ibrahima kay fa toxi il mawtee la waxoon sama borom suñu borom da ko daal di laaj xanaa da ngaa gëmatut mu ne ko ah kay bëgg rek sama xel mi dal mu doog ko koo woon loolu nag jàppandiwul ñëpp Euh, ba nga mën a wax ak yàlla kon bu boobaa li li mën a nekk mooy bañ caa xalaat ba defee nag booy xalaat nga xalaat ci mbindee fi suñu borom subhanahu wa taala su ko defee nag sëñ bi moom loolu it leeral na ko ci biir masaalikul jinaan ni ngay xalaat ci lii ginnaaw bu ko leeralee ba noppi li nga war a xalaat lu doon wax ni wal tuksiril fikrata fil xalaa'iqi ba nga taallumika laa bil xaaliqi na nga bari looy xalaat ci mbindee fi suñu borom yi ginnaaw boo xamee ba noppi waaye nag bul baril di xalaat ci jëmmi yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy aji bind ji wala takun za fikratin li faqrika fa tuksirul hamma izan wa ghammaka bul xalaat mukk ci sa ñàkk ndax dalay yóbbe rek njàqare akuk jaaxle akuk découragé aw zulmi shaxsin zalimin fa tuksira baynakuma xeqdan wa xaydan fasbira bul baril tamit de xalaat wala sax bul de xalaat ci ku la tooñoon nit ku la tooñ wala mu def la lu na naqari wala dara nga di ca dellu di ko xalaat ak day waral rek nga di ko bañ sa xol di wow ci moom ak yu demee noonu loolu da ngay muñ dañ ko def wala turim fikraka fii tuulil umar fa tatlubul jamaa wa dalika yadur foo toll nag di xalaat ci àdduna jëpp rek ngay xalaat lépp nga di xalaat xalaat yu xóot ëppal loolu it dalay lor dalay lor xam da ngay bëgg di bari looy bëgg te doo ko mën a am li annahu gis nga mu dayyixul umra kama yusawiful yusawiful mutia in lahun tama loolu rek la lay jural an faltudimil fikrata ya xamimi fi l ardi wasamaai wan nujumi wasamsi walxamari wal asjaari walmaai wannaari wa fi l axjaari wa xayriha kalleyli wannahaari tanaal yaqin alxalbi bil anwaari del xalaat daal ci suuf si asamaan si biddéew yi jant bi weer wi euh, garab yi ndox mi sawara xeer yi ak yu ni mel lu mel ni guddi yi ak bëccëg yi ni yéeme yooyu yëpp boo ko dee xalaat rek nee na di nga am xol bu bu bu bu leer na ñi incha allah kon loolu ay njariñ la yu bare bare yoo xam ne dana jug juddu ci wéet beneen bi ci des mooy ak mucc sa diine dana mucc moom xalaat moom wéet wéetaay dana la taxa sa diine mucc yow ci sa boppit bopp it mucc ci nit ñi ci seeni eh, maanaam saw làmmiñ dina mucc ci nit dara nit ñi ndax doo gis seen ayib ba di ko wax xëy na boo bari lee looy looy wéet ndax li ëpp ci jaxasoo yi tamit nag loraange da ci am benn ngay wax ci ñoom baa ñuy wax ci yow baa ngeen di werante ngeen di xuloo baa xeet détail yu mel noonu baa ngay gisal xeet yu bare bare ci loolu lay am lay aju loolu it kon lu mata a bàyyi xel la ni ko sun borom di waxe ca eh, xisab daawuda ba di wax qaala laqad dalamaka bi suaali naajatika ila naaji wa inna kathiran min alxulataai la yabxi baaduhum ala baadin illa alladina amanu wa amilu salihat waaw daala maanaam li ëpp ci ñi nga xam dañuy jaxasoo moom dañuy sàkkonte ku nekk di di di am looy kii ci sa moroom lu dul ñi nga xam ne gëm nañ di def lu baax kon nag bëgg bàyyi bëgg ci bokk ñoo da ngay néewal jaxaso jaxasoo it ndax sëriñ bi di wax ni wala tujaale sa xayra man bihi tudaat diinan wa xaqalan abadan talal muraat booy jaxasoo daal bul jaxasoo kudul ko xam ne dina la dool dolli diine ak xel boo ko defee rek li nga bëgg danga ko am incha allah su ko defee nag fi nga xam ne fa la ñuy jeexale te mooy euh, danger yi nga xam ne am na ko moom wéet wéet dañuy wax nga xam ne ñoo ci nekk di ko def saytaane da leen di dikkal lu bare bare bare bëgg leen a gàllankoor ne nga koy gisee ci ñu bare bare léeg-léeg ñu nekk ci bam yàgg rek ñu génn gis ay mbir saytaane koy def yabal leen ay jinne wala ay rawxaan yoo xam ne dikkal ñu leen bu ñu ñëwee nag di wax ak ñoom bu ñuy wax ak ñoom fi mu ne turi jinne yi képp boo ko doon wax am na ay rawxaan yoo xam ne dañ lay dikkal ak i xoddaam yoo xam ne ñoo leen di liggéeyal ñoom di wax ak yow mën nañ lay wax sax ay xaybu yoo xamante ni nit ñi xamuñu ko loolu day am waxuma laak nag mbirum suñu borom saytaane nag yooyu lay jaare di di di ci gàllankoor ñenn ñi bu gisee ñuy bëgg kii wéet mu de xamoy xam loolu la moo tax euh, euh, Samsuddin al-Qurtubi am na ko yàlla yërëm ni yu bokk na ci danger yi ak loraange yi nga xam ne danay dikkal léeg-léeg ñi nga xam ne ñooy beru mooy saytaane fowe gi nga xam ne moom la leen di fowe di leen yabalal ay mbir di leen feeñalal ay karamaat ak lu mel ne ay leer ñu di ko gis di yaakaar ne lii ci yàlla la jóge te jógewul ci ñoom loolu day am am na it ku ñuy wax euh, Abdul Muhti Mohamed nee na bu masaan di dugg xalwatu Mohamed noonu la nga xam ne day mel ni way ñàkk yi mel di woor di xiif di nekk ci yu mel noonu bu ci xasee nekk rek su ko defee ak leer gu mag a mag a di koy dikkal muy defee ni lii ci yàlla la jóge fekk na ndekete demewut noonu am na bari na ci ñoo xam ne nag buñ nekke ci lu mel noonu seytaane di leen di dikkal di leen xibaar ay mbir si Abdul Xaadir Jeylaani yàlla na ko yàlla am na bis ma nekk ci samay xalwatu ba mu yàgg rek leer gu rëy daal di dugg ci biir néeg bi fees fi dell rek nee na ma dégg kàddu goo xam ne musuma dégg kàddu gu neexee noonu ci àdduna nee na mu ne ma yow Abdul Xadir Jaylaani ma ne ko labbayka mu daal ne ma nanga xam ne bëgg naa la mu mel ni sama borom laay wax rek nee na kàddu gi moom kéemaan la nee na ma ne ko ah, nee na ma seey man ma ne ko daal seey naa ba jeex takk rek ni nga xam ne noonu la xorom di seey ci ndox daal yaakaar ni euh, sun borom daa yebal am malayka ngir may wax ak moom na mu waxe woon ak Moussa alayhi salaam na mu daa di indi yeneen kàddu gu gën a jige mu ne ma wala xad xarab naa ka yaa Abdul Xaadir na xam ne nag jege naa la nee na ma daa sama sama yaram bi daal di yëngatu daal di daw loo xam ne daal kéemtaan la mu daal waxaat daan na ma ana rabuka yaa Abdul Xaadir ma ne fa qultu fa qultu labbayka yaa labbayka rabbi labbayka ma ne ko yow sama borom wuyu naa la wuyu naa la mu daal ne ma na nga xam ne axalal naa lakal xaraam yaa Abdul Xaadir na nga xam ne li xaraamoon ci yow lépp daganal naa la ko nee na rek ci saasa rek sama mbir daal di soppeeku ma xam ne lii du yàlla ci saasa rek ma daal di ko izhab yàlla xayn jóge fi yow ku ñu rëbb rëbb ki nee na leer ga daal di fay nee na ci sansa mu daal di yëg ab sedd bu bu bu ak kii lëndëm mu daal di ñëw nee na ma daal di dégg kàddu goo xamante ni musuma dégg kàddu gu naqaree noonu ci àdduna kàddu gu bone noonu mu ne ma ilmu ko najjaaka yaa Abdul Xaadir yaa Abdul Xaadir Jaylaani na nga xam ne sax xam-xam de moola musal daan ni ko wallahi laxat axrajtu sabaina waliyan min diwaanil wilayati biha na nanga xam ne génn naa juróom ñaar fukki wàllu yu ca péeyub eh, wàllu ya ci melokaan wii ma la dikkale defloo naa leen ko ba ñu bàyyi li daganoon lépp ci ñoom dugg ci waru te xamuñu ko ba ñu far tur ca diwaan ñu doo koo xam te mënatuñoo dellu nga xam si daxaatir kon xam-xam moo ko ca dimbali génn ko ca loolu nag bari na ba tey ji mi ngi am ñu bari ci gone yi sànku nañ ci lu mel noonu ta yooyu la moo tax fokk ñu xam ne li ñu li ñu sànni mënta ñàkk muy wut seexu tarbiya wéeru ci moom mu di la orienté mënta ñàkk te koo wax danaan la man diwuma ci kenn sama sama jàpp ni yow doy nga sa bopp ak naan damay dem wut sëriñ say euh, euh, téere yeey samay sëriñ xeet yi mel noonu lii rek lay jur kon ñu xam ne am na danger am na njariñ loolu nag ku ci bëgg mu ci dangay dem ci ko xam mu teg la ci yoon yal na nu yàlla dimbali ñu bañ a lor mukk bi na Musaa sallallahu alayhi wa sallam barke borom Tuubaa kon euh, mu mel ni euh, dañuy tënk foofu xam naa waxtaan wi waxtu wi mat na sax ba xaw a teg waaye dañ doon bañ a dagg rek li ci des kon mel ni euh, Maodo baa ngi noonu itam bi lépp lu ci waaye dégg tamit njariñ rek yal nañ ko bokk njariñoom li ci ñu ngi leen koy jégalu bu baax إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني